sayyidil wujudi sayyidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi rachiduna alkiram wa man tabiahum wastanna bi sunnatihim ila yawmi ddin mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara gannaaw ba ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni moo ñu may fekke ak tal ak wér ba ñu toogaat ci ëtt bu baax bi ëtt bu tedd bi di télévision bi nga xam ni tabaarakallahu mu ngi liggéey ci wàllu lislaam lu baree bari ñu naan ko ah, tabaarakallahu Thiès TV Thiès Thiès 24 tabaarakallahu di ñaan yàlla subhaanahu wa ñi ko yor ca bopp ba ba ci ñi nga xam ne ñoo ci gën a eh, suufe yàlla defal leen tawfiiqu biir ak biti wa ma zalika allah bi aziz di nuyu mbokk mi nga xam ne moom la ñu jàkkaar lool eh, fekk suñu ci suñu barab ngir waxtaan ak ñun ci wàllu tabaski danañ ci sawar lool ndax it euh, loolu mooy njariñal boroom xam-xam lii njëriñam mooy xamle moo tax euh, waxkat ba wax ca téeréem ba mu ne wa aalimun bi ilmihi lan yaamalan muazzabun min qabli ubadil wasan borom xam-xam bi nga xam ni yàlla la ko dénk xam-xam te laabewu ko biir waaye jëfewu ko boole ci euh, nee nañu ëllëg yowmal qiyaam bala ñuy mbugal ñi nga xam ni ñoo daan jaamu ay xërëm ñoom la ñuy njëkkee ba pare kon yàlla bu ñu bokk ci boroom xam-xam yooyu eh, tabaarakallaahu ñuy waxtaan nag ci wàllu tabaski eh, tabaski nag ñun olof yi ñoo ko tuddee tabaski waaye iidul adha la tudd maanaam feetu gàtt yi waaw maanaam rendi gàtt waaye bu ñu ko waxee feet ñun ñoo ko def feet waaye tuddul feet ndax bu ñu delloo ci cosaan eh, nit lan doon tëral di ko bëgg a rendi waaye nag mu nga jaare ca baay bu baax di nabiyallahi ibrahim nga xam ni sunu baay maam ibrahim alayhi salaam di yonent yàlla di nekkoon nit ku baax ku yow ku tedd yàlla jaar moom ci ay jaar-jaar yu rëy yu bari benn test bu ci nekk bu ko yàlla teste tabaarakallaahu mu réussir ko ba yàlla ne ko wattaxadallaahu ibrahima xalilan yàlla nee na maa dem ba jàppee maam ibrahim sama wëllëre sama xarit kon ku nekk xaritu yàlla li nga nekkee xaritam mooy da ngaa jubóog ay jëfam jëf maanaam santaane yi yàlla santaane da ngaa jubóog santaane yooyu moo ko waral def santaane yooyu nag moo ko waral moo indi lii tamit ci santaane borom bi subhaanahu wa taala la bokkoon euh, yàlla mu ngi ciy wax ci alquran di wax ak maam ibrahim maam ibrahima di wax ak doomam waaye mu ne ko yaa bunayya anni ara fil manami anni azbahuka yow sama doom in man daal yàlla won na ma ci gént ni ma lay tëral rendi booba daa fekk maam Ibrahima ci wàllu at bala muy am xale ba di Ismaayil dafa toll ci wàllu at ñii ne nañ téeméeri at la ak euh, juróom-ñeent ñii ne nañu ëpp na ko waaye ala kulli xalin màggat màggatu màggaloon na soxnaam nag amoon juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent ah ñu amuñu doom yàlla dogal mu jël euh, tabaarakallaahu jaamam bu ñu naan xaajara mu may ko maam Ibrahim mu am ca taqandeer boobu ñu naan Ibrahim euh, Ismail yàlla def Ismail moomu yàlla di nattuwaat maam Ibrahim ni doom bu góor neexee ni taaw neexee ca nga xam ni doomu mag la nga xam ni mag bu magal bu amee doom ni muy soppee doom ji ni muy bëggee doom ji ni doom ji di saxee ci xolam ah tabaarakallaahu mu daal di euh, ne daal wax dëgg yàlla. Euh, yàlla nekku doom ji ma la may damaa bëgg nga rendi ko gént yonent yi bokkul ak sunu gént ñun dañuy reer ba ba sunu biir fees ñu tëdd nelaw di gént ay xuraafaat ñoom nag lu ñu géntul ne rek yàlla moo leen ko won waaw kéemaan la yàlla won leen ko sant ko digal ko ko na ko def di ko natt di ko xool ba xam ndax est-ce que bu yàlla santaane dina def kon maam Ibrahim bi mu waxee loolu mu am doom ju baax ni taa war a mel ci baayam di ñu jàngal ni maanaam bu baay di waxtaan ak taawam taaw bi dafa war a xool li baay bi baay bi mu am ban baay la ban genre baay la baay boo xam ni yonent la baay boo xam ni ku ku ku dem ba nekk xaritu yàlla la ba yàlla tuddee ko aw xarit kooka baay bu am loolu bu la santee dara yaakaar naa ni waroo lànk waroo bañ moom nag Ismaïl bi ko yàlla bi ko baay di waxee loolu fanzur maza tara xoolal nag xalaatal ci li ma la wax li ci rendi gi lan nga ci gis waaw nga xool nag bu doon kenn ci ñun la nan lay mel bi mu waxee loolu mu ne ko yaa abatif al yow sama baay daal jëf ji daal xam naa ne santaane bi yàlla la li ma lay wax mooy defal jox naa la ndigal sama bopp waaw maa tu li nga xam ne moom la yàlla sant def ko waaye nag boo koy def nag sa tajidu nii insha allah mina saabiri ma fekk ci bay muñkat ya nga xam ne du ma onk du ma daw du jàmm nga de ko naqarlu waaw bi mu euh, waxee loolu yàlla def iblis jóg dem ca waajur wu jigéen wa daal ne ko waa yow soxna si yow daal ah man daal yow daal dafa yéeme waaw yow nan la ngay amee doom ci at yi nga toll Ibrahima mi nga xam ni magal na dof na mu bëgg a rendi sa doom nga toog di xoole mu xam ni kii di wax seytaane la mu for ay xeer sànni ko ko loolu moo indi jamra bi mu jógee foofu moom Iblis mu dem ci Ismaïl ne ko yow doom sa baay bii dof la magal na bopp bi toj na ah ngay toog di nangu mu lay rendi ah ci ay génti xuraafaat rek mu xam ni iblis la mu for ay xeeram sànni ko moom it mu daw muy jaareelu jamra bi mu jógee foofu mu dem ci maam Ibrahim moom mu mu mu ñëw ci Ibrahim ne ko yow nga xam ni at yi nga amal sëy nga ñaata at yàlla may lu takk der nga toog ba yàlla may la nga taawlu nga dégg bëgg a jël sa taaw bi rendi ko ci kaw ci ay ay gént yu caaxaan rek mu xam ni iblis la xam ni seytaane la mu jàll ay xeer sànni ko mu daal di loolu mooy indi ñetti jamara yi nga xam ni moom la ujaay yi di sànni tabaarakallaahu euh, muy muy loo xam ni lu am solo la ci njàngale famille bi mu demee di exécuter euh, euh, ma Ismaïl Ismaïl ne ko bàyyi daasal paaka bi ba mu ñaw moo tax kuy rendi xaru tabaski ku ne paaka ba da ngaa war a fexe mu nekk paaka bu ñaw ngir li ngay rendi da nga ko amel àq donte yàllaa ko tàggat teg ko sa yaram teg ko sa loxo. na nga ko amel àq mooy lan mooy tee rendi ko teel mu bakkanam teel a far mu teel a dee waaye nekk fa di wéqatoog di métitloog nga rendi muy xar ma jóg ak di daw ak nga ciy toppaat ak yooyu yooyu yëpp dafa nekk lu doy waar yoo xam ni bu amee maanaam dana metti ci bakkan bi koy def waaye it sax day mujj sax yow mën ngaa am yàpp sax faay waaye doo am tabaski kon loolu ñun ñi war nañ ci bàyyi xel moo tax paaka yi war naa ñaw mu nga xam ni li ngay li ngay lottal nga mën koo lottal teel mu mu mu jeex beneen bi Euh, mu ne moom Ismaïl bu ne ko na nga muur samay bët xam nga diggante doom ak baay nii cofeel gan mel ak doom ni mu saxee ci xol ca la euh, ne ko muural samay bët ba boo may rendi suñuy bët du ñeent ngir nga mën a am yërmande ci man nga mën maa nga mën a nga bañ maa nga bañ a def santaane bi nga xam ne moom santa moom la yàlla santaane loolu nag li nga ciy déggee mooy famille la famille bu baax baay bu baax soxna su baax doom ju baax loolu nag dafa am ay sabab yu koy yu koy indi moo tax doom bu baax dañ koy liggéey dañ koy sabablu ci sa anam bu rafet bi yàlla santaane ci ngay mën a amee doom boo gisee yu bari ñu am problème euh, euh, mën a éduquer seen doom donte ñoom ñu baax lañu mu ñu éduquer seen doom mooy parce que doom ja dafa faussé ca ca ca ca njëlbeen ga te bu weñ bañee ca mbànjaxaan ga day weñ ge day naqari jubbanti lool ah tabaarakallaahu beneen bi mooy ki mu ngi war ci ki nga xam ni jullit la ku dul jullit tabaski waru la yéefar tabaski waru ko waaw tabaski warul yéefar donte nag ñu ngi dëkk ay ñoo xam ni xëy na duñu bokk ñu ñoom diine waaye dana rafet ci solidarité l'islam ni l'islam jekkee ni l'islam rafetee ni lislaam sàmmee ak ki dëkkaale ña nga xam ni benn ak moo dox sa diggante ñoom muy wàllu diine nga daal di rendi togg togg ya yët leen ca walla nga daal di dindi ca ca yàpp ba yët leen ca loolu l'islam rafetlu na ko waaw beneen bi mooy ah parce que ki mu war mooy jullit bu muskallafe bu góor ak bu jigéen waaw bu góor ak bu jigéen ñoom la tabaski war ci ñoom ku ko ci am am moyen ba na nga jënd sam xar nga tabaski boo ko amul nag boroom kër gi bu fekkee ni moom moo ko am soxnaam amul day rey yóbbaale soxna seek njaboot gi yëpp ak i jarbaatam yi nekk ci biir kër gi yëpp bu fekkee nag am nañu moyen ñu ngi liggéey di daan seen doole di tuur seen ñaq di am njëgu lu njëgu xar nañu jënd kenn ku ci nekk tabaskil boppam kon ni tabaski waree ca ca ku góor ki noonu la waree ci ku jigéen ki beneen bi mit mooy léeg-léeg ñun dañuy def léeg-léeg erreur mooy da dem jënd yow borom kër gi da ngay jënd sa xar tabaski nga indi ko ci kër gi soxna si ne la sama xar ñëw na waaw sama xar ñëw na waaw léegi yow borom kër gi bu fekkee ne soxna si ne na sama xar ñëw na yow ana sa xa ana xar loolu ñu war ñu war ko sóoraale bu baax a baax ku ko ci yàlla mën loo daal ala kulli xaalin kenn ku ci nekk ngay jullit di xale bu góor bi nekk sax yoraguloo soxna nga mën a jënd tabaski na ngay jënd tabaski waaye ñun malheureusement aada dafa dafa dominer suñu biir ba aada mel na lu xaw a làq suñu diine waaw beneen bi tamit am na ci ñoo xam ne dañoo mel ni man nañu dañoo nangu la gëstu ji dañoo nangu la jàngi xam-xam parce que seen age xëy na xeeb nañu wala rus nañu wala sew nañu ci seen âge fi mu toll ñuy dem di dënd ak borom xam-xam wala di ko laaj wala di tàllal seen téere wala di ubbi seen téere di gëstu di jàng loolu nag dafa nekk lu doy waar waaw xaru tabaski nag moo xaru tudd benn la xaru tudd ngénte benn la amuñu différence xar mi dañ la leen a nekk xar mu mat lu mu manqué lu mu tuuti tuuti na am juróom-ñetti weer jëm kaw bu matee juróom-ñetti weer jëm kaw mat na tabaski bu fekkente ni béjjén ba dammul di nàcc bu fekkente ne damm na ba pare euh, euh, nàcc nàcc ba wir mat na tabaski bu mu pat ñaari bët yépp dafa war a gis beneen bi mooy bu mu nekk xarmu yooy ba nga xam ni amul maanaam graisse xar mu duuful mu yooy ba yooy gi feeñ lool ba yax yi feeñ xar moom tamit matut tabaski wala mu làggi wala mu làggi bu làggee it ba làggi bi feeñ du mat tabaski geen nga it bu fekkente ni maanaam dafa dagg dañuy xool geen gi bu fekkente ni dagg euh, euh, ñetteelu xaaj bi la dina mat tabaski waaye bu fekkee mat na ñetteelu xaaj bi rek tabaarkallaaw dootul mat tabaski bu ko ëppee rek da dootul mat dootul mat tabaski bu boobaa yooyu yëpp jar naa bàyyi xel euh, xar mu biir bay daw kenn mënu koo tëb matul tëbaski yooyu war nañ koo bàyyi xel ba booy jënd war ngaa xool li ngay jënd lu mu doon bu ko defee jaaykat yi tamit nañu laa biir parce que ay jullit lañu bu la am sa xar mu am sikk rek nga daal di koy jaayee noonu sa mbokkum jullit mu dem ah, tabaarakallaahu defee ko noonu beneen bi it mooy da dégg léeg-léeg ah, sama mbokki fàlle yi ña ngeen ni dañuy jóge seen kër yor seen xaalis naa ne man am tàpp laay wuti xaru tàpp laa bëgg a jëndi yow bala ngay jënd tàpp am kuy lañ la wax am kuy lañ la wax kuy mu mat boo amee boo am boo amulum kuy dégg nga de nga soog a xool dégg nga maam euh, xar mu xar mu jigéen boo amul xar mu jigéen nag nga soog a jëm ci tàpp waaw xoolal tàpp mooy troisième dégg de boo ko amul béy bu góor boo amul béy bu góor nga wut béy bu jigéen boo amul béy bu jigéen nga soog a wut béy bu ñu tàpp noonu la la mel kon ala kulli xaalin lii mooy xarum tabaski yii mooy xar bi mu mel ni tamit lañuy tuddee doom la ñuy rey ci ngénte kon fa tabaarakallaahu euh, mu mel ni tabaski ah buñ ci doon wax fii ba suba it dafa bari dafa yaatu waaye nag ah xam nga tabaarakallaahu euh, waaw bu dee tamit ku leb xar tabaski nga leb xaru tabaski te yow wóor na la ne di nga am loo ko fayee bu boobaa may nañ la nga leb bu boobaa nga tabaskee dagan na waaw dégg nga dagan dina dagan ci nit ki leb boo am bu fekkee ni am na benn objet wala benn matériel boo mën a jaay loo xam ne mu ngi ci biir kër gi nga mën koo jaay jënd xar tabaski nga jaay ko dem jënd xar tabaski bu fekkente ni amuloo nag boo amee ku la mën a lebal te it mu wóolu la te mu wóor la ni da ko fay bu boobaa dina la dina la war nga daal mu daal di lay lebal bu ko defee boo tabaskee bu pare nag nga fexe góorgóorlu fay waaw tabaski ki mu warul mooy ki ko amul amuloo doole amuloo moyen dégg nga de amuloo loo jëndee tabaski yaa ngi dégg te ngay jullit bu boobaa boo ko amul premier jour bi boo ko amul dinañ la may deuxième jour bi boo ko amee ci diggante bi nga tabaski bu fekkente ne amuloo ko ci diggante bi ba man ñetti fan wàcc na la waaw wàcc na la dootul obligatoire ci yow. waaye nag léeg-léeg da ngay gis ñun ñu teg suñu bopp coono yu métti yoo xam ni yàlla dafa wax ci alquran ni laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaha yàlla neen teguma benn bakkan lu dul la jàppandi ca moom la nga xam ni moo facile ci moom di facilité tâche na def loola boo amul njëgu xar waaye am nga njëgu bëy jëndil bëy bool ne rek il faut nga jënd xar rek ni sa morom dangay dugg ci coono dugg ci ay problème dugg ci ay détails muy ni la yeneen coono yoo xam ni tabaski jaru ko tabaarakallaahu beneen bu fekkee ne am nga mbubb mu mon boo xam ni mu ngi mën na jar tab mën na boo ko jaayee di nga mën a jënd am xar nga jaari koy jaay jënd am xar dégg de waaye ñun jënd jesneer ñaw ko ba mu daamine ko ba mu rafet moo ñu gënal dem jëndi xarum tabaski te jesneer bi nag d'accord yére bu rafet yëre bu bees ci julli bi baax na waaye nag na nga fexe nga am nga am am tabaski ba pare ndax tabaski nee nañu ëllëg bu ñuy jéggi siraat kenn ku ci nekk la nga tëb xar bi nga tabaskee woon ci nga yéeg ca ngay war pour jéggi siraat waaw nu xar ma toll am doole tabaarakallaa boo ko amee ngay borom am-am yàlla may la wërsëg jëndal xar mi tollook sa dayoo waaw bu keneen amee lu moo lu yem lu yem na jënd xar mu tolloog dayoom bu amee lu ki nga xam ni moom dafa am li mu am néew na na jënd lu tolloog la mu am bu dee béy la tabaarakallaa fii boo fi jëndee béy Sénégal dañu niñ mel boo jëndee béy sax dañ lay dañ lay saboter di ko di di di la di la di la marginaliser maanaam di la di la di la ree di amee la ci koñ bi yaa ngi dégg fekk nag l'islam may na ko ndax sa doole fa la yem ala kulli xaalin am na tabaski ki lépp xar am na tabaski bu fekkente ni mën naa ko fay bu fu ko wóoree ni bu weer dee dana mën a fay wala waxtaan ak borom ki nga xam ne moom la moom moo koy lebal ñu waxtaan ci mora maanaam moratoire weer bu dee ma jox la 10 000 weer bu dee ma jox la 10 000 ñu d'accord ca loola moom it na respecté loola bu ko defee bu dina am tabaski mën nañu rey benn xar ci biir kër ñun ñëpp ñu bokk tabaski ci mais li mënta nekk mooy nga cotiser dix mille kii cotiser dix mille kii cotiser dix mille ñu jënd xar loolu amul loolu moom kenn ku nekk dafa war a tabaski kon cotiser ñu tabaski loolu moom euh, euh, charia mayoyu ko yooyu bokk ci yooyu ay aadala waaw xar mi dañ la ne boo ko rendee na nga ci yët sa mbokku miskiin boo xam ni yéen a dëkk te tabaskiwul ak ki nga xam ni sa dëkkandoo la bokku leen diine lislaam nga yët ko ca li ci des nag ngeen togg ngeen lekk léegi nag dañuy denc jëmale ba ba tam xarit waaw waaw te loolu tamit euh, kiiwul waaw di ci lekk ndànk-ndànk ña ngeen yeeg faale ni noonu la def dégg nga de waaw. déedéet imaam kenn waru ko njëkk a rey boo njëkkee rey imaam amuloo tabaski dafa mel ni rek nga njëkk julli imaam maanaam ngay ngay ngay imaam jiite la. di julli nga njëkkoo ruku wala nga njëkkoo sujud boo ko njëkkee ruku amuloo julli am na ñu ne sib nañ ko waaye nag li wér te wóor mooy amuloo julli imaam kenn du ko jiitu ci ay jëf da ngay toppandoo imaam ci ginnaaw du wér nga jiitu imaam boo ko defee sa julli yàqu na du wérit maanaam sib nañu it nga ànd ak imaam imaam di dem rek ngeen ànd yéen ñaar loolu sib nañ ko da ngaa war a topp imaam xaar ba mu def ba pare nga sooga def waaye bu fekkente ni jiitu nga imaam amuloo julli ala kulli xaalit déedéet kenn du ko njëkk rey imaam boo ko njëkkee rey amuloo tabaski waaw. waaw li ñuy wax boroom kër yi rek mooy euh, boroom kër yi góor góorlu ak soxna yi góorlu ndax daanaka bu tabaski jotee sëy yu bari dinañ yëngu jafe-jafe yu bari dina am ngir lan ngir jëndaloo ma mbubu tabaski xottiloo ma mbubu tabaski te mbubu tabaski warul boroom kër mbubu tabaski. warul borom kër mu jëndal ko soxnaam de waaw loolu lu wér la dégg nga de bu dee yërey tàngaay nag dafa tàng féexlukaay nga jëndal ko yërey seddaay ngir mu mucc ci sedd bi nga jënd ko waaye tabaski ñun ñooy def rek maanaam suñu diggante suñuy soxna lu rafet waaye ñun waruñu waaw yëre tabaski waru na noonu la it xaru tabaski it soxna si daf ko war a jënd bu ko amee yow nga jënd boo amee moyen mën koo jëndal na du force sa alal may la nga mën a jëndal sa bopp jëndal ko baax na rafet na dana yokk cofeel seen diggante dana yokk seen diggante seen diggante gën a rafet gën a tax gën a neex dégg nga de mooy ñu góor góor góorgóorlu xam ni tabaski benn bés la te na la kon sun na ki nga xam ni dalaa takk ngeen sëy ay at mu romb fi góor ñëpp ne la euh, mu romb fi jigéen ñëpp teg denc la ngay soxnaam euh, yooyu it nga romb fi góor ñëpp ne ko yow yaay sama borom kër fexeel ba bésu tabaski bu leen boole te sunna la mooy lan xar mii du fi dugg ci kër gi wala man meru jow naa beneen xar bu dul bii xar mii dafa tuuti dafa ndaw wala rey mu dee la wala reyul mu dee moom la am dooleem fa la toll bu ko ko xeebal xamul loolu mu def ba am ko waaye boo ko bëggee imposer ba tax mu jaral la bu fekkente ni jëndul xar bi nga méritoo da ngay fa euh, da fay dem sa kër papa wala sa kër yaay ngay dem jullee fa gédd kër ga wala mu jaral la ba nga ñaan baat yooyu yooyu moom moom doxul te loolu dafa bari événement yu mel ni bu ñëwee rek sëy yu bari dañuy yëngatu te lu koy yëngal nag lii moo koy yëngal waaw te nag wax dëgg yàlla war nañu góorlu nag xam ni sëy du caaxaan sëy ajowul ci tabaski sëy ajowul ci ci korité sëy ajowul ci dem yóbbu la ma màkk déedéet sëy yàllaa ko santaane moo ko digle nañu denc ci soxna yi benn ba ñaar ba ñett ba ñeent ku boo mënul de attanoo amoo mën leen a uuf wala mën leen a yore walla mën leen yemale wala mën leen a mën a maan mën a mën a mën a maandu sa di sa diggante na yem ci kenn nga noppal sa bopp bañ a teg sa boppu euh, euh, aw ay tabaski ñetti fan la bisu bu njëkk bi mooy bisu ayit bi mooy bi ma la wax ni boo amee xar tabaski nga rey ci bés bi boo ko amul ca ëllëg sa waxtu wi nga xam ne moom lañ julli woon boo amee nga rey boo amul ca gannaaw ëllëg sa maanaam nga rey bu weesoo loola nag wàcc na la waratu la. ñuy fil ñuy filmer. ñàkk julli iid julli iid sunna la léeg-léeg Sénégal da naan euh, euh, bu tombeek bisu àjjuma euh, bu ñu jollee iid bi jarul ngay dem julli ci jumaa déedéet julli iid sunna la waaye julli àjjuma ma faratal daf laa war force obligatoire la da ko war a dem julli ji bu ne julli naa it rek déedéet non naa toog rek faale ni yéeg ña ngeen rek daal di booy boole boole koog dégg nga maam bés bi rek maasale déedéet julli it sunna la boo ko julliwul du du wàcc maanaam du du nekk sa kaw maanaam war la mu nekk obligatoire looy fay wala dégg bam déedéet julli boo ko assisté nga julli baax na boo boo assisté wul parce que serment bi moo ëpp solo serment bi actualité la ci imam bi di war a wax actualité scul actualité l'islam li diine l'islam santaane ak li xew maanaam imam ba waxtaan ca naab ca njaboot ga moo tax ñu taamu góor ak jigéen ku gis régal ku gis baax ak ku gisul baax yépp nañu ñëw gone yaag kër yaag ñépp nañu ub kër yi ñëw ci jumaa ja déglu imam bi li muy wax fekkente ni imaam bi dafa war a lancer message wax li nga xam ni moom la yontu bi sallallahu alayhi wasallam santaane ci xutba ba mu wax li yàlla santaane ñin ñi dégg yóbbu loolu comme sëri ca yóbbaale ko ci kër ya ba na ak jàmm. boo amee say yére yu bees nga sol taamu nañ ca nag boo xëyee nga bañ a lekk dara waaw ba ñu dem ci julleekaay ba bu ñëwee bu ñu reyee nga daal di mos ndogoo ca la nga xam ne mooy gàtt ba. su naal nañu booy dem euh, sopp nañu booy dem boo xëyee sa kër nga nga ngay ngay ngay tudd ngay tudd yàlla waaw allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila dégg de am na ñuy wax boobu am ñu naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila waaw nu ñuy wax loolu bu ci yaar yi boo ci mën a wax nga wax ko ci ala kulli xaalin boo demee ci julleekaay ba boo ñëwee néegu yàlla la barabu yàlla la dañ fay jaamoo yàlla nga def sa ñaari tahiyatul masjid maanaam nga def sa ñaari ràkka nga nuyu barab ba dégg nga maam daa di daa di daa di toog ànd ak ma ànd ak yar beneen bi sopp nañ ci nga watu defar sa say faas defar say mustaas rafetal sa bopp taaru ndax bés boobu dañ ko ci sunnaal ba pare nag nga daal di dagg say we waaw nga xam ni tabaarakallaaw ah, bu ko defee ah, boo demee ba ñëwaat nag nga lottal sab gàtt te bëgg nañu booy rendi ba nañu bàyyi xel foofu bu baax léeg-léeg nit rendi fekk la mu rendi medd na ndax daf cee daf daf ci def daf ci bokkaale yàlla booy rendi da nga naan al bil bismillahi allahu akbar allahumma taqabbal minna yow yàlla yàlla nag ñu nangul lii ñuy rey lii ñuy lii ñuy jegeyoo sa jëmm ndax yàlla nga ko rendil yàllaa tax nga rendi ko moo la jox ndigal na ko rendi moo tax nga ne bismillah waaye boo ne bismillah yi barke diw nga teg ko ci rek médd na ndax da nga da ngaa yàlla ak keneen da ngaa keneen ak yàlla te bu boobaa nag du wér yàlla kese yàlla dong moo ñu jël euh, moo jël euh, euh, maanaam jur yi tàggat ko teg ko suñu loxo ngir buñ ci soxlaa ñu ci xéewal di ci faj suñuy aajo di ci faj suñu soxla ñu ci am yiw di ci am tiyaaba dégg nga de ki war a rendi nag foofu c'est très important du ku nekk moo war a rendi waaw ñaar ñi kii jullit la day def li yàlla santaane di bàyyi li yàlla tere ah nekk gëm yàlla kooka bu jotee gàtt tabaski buy tëral di rendi kooku day rendi ndax mu ngi góorgóorlu ci li yàlla santaane mu ngi def li ki nga xam ne nag yoonam nekku ci julli te nee na jullit la faalewul julli bu sëppee jéem bésu tabaski la bu tegee jëm ci suuf bi si korite la kooku day rey mais rendiwul ah, parce que bala ngay rey da ngay xam li yàlla wax ah, moo tax nag léeg-léeg booy rendi ku mel noonu buy rendi jur ji euh, li muy rendi gàtt bi day wax ak moom naan koy waa ñàkk jom yow man bu ma dul woon mbindeef yàlla bind ma def ma lam ma def kon yow doo rendi ndax waroo maa rendi yow yàlla yàllaa ngi nii li mu la sant mbooleem li mu la sant defoo ci dara faalewuloo yàlla sax sa yow nekkul ci mbir yàlla waaw bés tey ñëw nga tëral ma bëgg maa rendi kon kooku rendiwul day rey ndax booy rendi da ngay xam li ngay wax ah bismillahi allahu akbar allahuma taqabbal minni bu dee kenn kenn la moom mooy rey xaram bu dee nag da koy rey di ci boole waa kër gi yëpp di ci yóbbaale ñeneen ñi maanaam da nga naan bismillahi allahu akbar allahuma taqabbal minna kooku pluriel la jamu bi ngay indi waaw waaye bu dee fee nag yow dong la yow sa gàttal da nga naan allahumma taqabbal minni yàlla nag ma nangul man kon nag bu ko defee yàlla nañ yàlla nangul suñu tabaski yóbbu ñu ci jàmm bi jaay sidil sa salaa salaam ñu góorgóorlu rek def ci solidarité dimbalante ci ku dekk ak sa mbokkum jullit nekk ak moom xam ne amul moyen mënut jënd xar tabaski li wajhi llaahil karim te nga mën ko jëndal nga jox ko dimbale ko yàlla mën nga sa xar mi nga rey ci biir kër gi nga dindil ko ci lu am solo moom it mu togg ak njabootam mën a nekk ci jàmm kon yàlla yàlla nangul nu rek mu jub yàlla borom bi subhanahu wa la neex waaye lépp luñ ci dégg mu yum juumte muy fattu rek tabaarakallaahu ñu xam ni bëggoon a wax ñu dégg bëggoon a defar bëggoon a wax mu jag mu baax moom moo loon ci jublu woon in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi wala hawla wala quwwata illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa